jàngoro ji la day ah war nañ cee wax de war nañ cee wax de source aane lii xeeñ daal neexul déedéet dama ne la feebar bi la li ci xeeñ neexul de aha ah, maa la ko wax parce ay bakkan yu baree bari day ah bu yeboo ñu commencé koo tiit nag maar di taali parce que nag bi feebar bi duggee ci réew mi ba léegi ni la dee bii nag mooy bu njëkk waaw ci benn bis rek lu tolloog juróom ñaar ci ay doomu aadama kon jàngoro ji daal di leen daan juróom yëpp xamuñu fan lañ ko dëggee ay communautaire lañ waaw xoolal ca diwaanu Louga gee saa yi bu ñu xëy muy gën di doy waar parce que nag commerçant mag bi nga xam ni kon maanaam moo nekk ca réew moomee di Louga wàll na di taali waaw waaw maanaam askan wa yëpp ñu ci gën a bëree bëri dañu ko doon fréquenté waaw dama ne la am na lu comité laaye parce que docteur Diouf day ah nee na damaa xamul luy ndayuk ñu daal di tëj nag néegu yàlla yi lée jumaay ba noppi nag daal di bàyyi nit ñi ñuy daje ci ay marché lu ne mel looloo jaaxal ñëpp les secondes yéene kaay ñii nga xam ni kon dañuy dëgg feebar bi te xamuñu fan lañ ko jëlee dee cas communautaire yi waaw loolee na commencé naa tiital ko askan wi laas ne Ndakaaru njaay jël joob ak banlieue ba dee tiit nañu de jaxasoo de lool da koo war ndomba mardi itali waaw waaw parce yow ci benn fan rek ka communautaire yi di jóge ci juróom daal di kon dem ci ñaar fukk allahu akbar Kër Massar waaw ña nga commencé sax de waata ngay da ngay lox allahu akbar waa grand place Kër Massar kay waaw menace la menace la dama ne la xoolal ma rond-point bële bomb la de waaye bomb boobee léegi ñu peeral ko incha allah dama ne la ay téeméeri téeméeri kaar yoo xam ni kon day surcharge fees daal ñooy daw ci diggante tagum nit ñi wala fat leen sax nag benn yoon en tout cas conseil des ministres ba dee corona ga laal na ko de ah waaw waaw laase dëgg la parce que Macky Sall ci boppam kon daal dinay fattu nag ci biir këram ña nga xam ne ñoo fa doon ñëw di indi ay lettre courrier ak yooyee nee na na dak na dak de sur quotidien ne bàjjenu gox yeeg ASC yi de ña ngay sensibiliser le témoin kaay ne waaye école privée day waaw ña woo gouvernement Macky Sall bi de ngir mu dikk nag teg leen loxo école privée kay waaw sonn nañ de lool Dakar waaw lu tolloo fukki junni ci ay doomu aadama de am nañ ko juróomi téeméer ñàkk nañ seenu bakkan inna lillahi wa inna ilayhi rajiun bok suba bi lan moo tax ba masque yi de mënuñu koo forcer nit ñi ne leen di ngeen takk ay masque par force parce que nag moo gën a gaaw ci frais de transmission communautaire yi la ñi nga xam ni kon nañu koy dëgg te xamuñu fan lañ ko jëlee waaw masque yee gaaw ca loolee dama ne gis nga ci duwaanu Tambacounda gouverneur ba ca boppam ah faj waaw nekkul ay masque nekkul ay gel déedéet waaye tëj nit ñi seeni biir kër jox leen añ réer ndékki ravitaillement loolooy dëgg de évidence yéene kaay ne moo ma Macky Sall de waaw mi ngi ca ñax ministre finance Abdoulaye Daouda Diallo ngir mbir mi gaaw Le Soleil yéene kaay ne gis nga séddale lekk gi nga xam ne kon dimbal la daal di koy jaglelee askan wi waaw njiitu réew mi de nee na gars na mbir mi gaaw farata la faratal la 24 heures yéene kaay ne na ñoo xam ne seeni bërëbu liggéeykaay de boo sàgg nañu dàqale maar di taali ak ay chômage technique ak yooyu waaw boo taxit Macky ma ngay soppi na ko du travail ba ñaw enquête yéene kaay ne lu leer nga wax gars yi liggéey kay boo sàgganee rek adduna wàcc seen kaw musiba mbaa ba kumba nguur gi commencé naa tiital ñooñee de ñii liggéey l'observateur ne Macky Sall dafa mer de lool borom hôtel yi nga xam ne ko danoo siisu ne duñ joxe seeni hôtel termine yéene kaay ne Macky Sall xanaa xamoon ne ñaari mbas ko wër ñaari mbas mbasum corona ji lée ak bakkanu sénégalais yi nga xam ne kon mi ngi ci xottu gerte nit ñi fi mu nekk ne danoo sonn lool termine yéene kaay ne bilaay jàpp ci doomu réew mi Macky Sall bu yeboo mu jàppale te jàpp ci doomu réew mi lee préférence nationale waaw waaw dama ne la xeex bi nga xam ni kon ñu ngi koy xeex wàllum corona ji ah ana jooni jooni rey nañ ko yàgg na waree ngi nii ay biteel lañ ko sampal bâtiment travaux publics ñu ngi ci sukuraat te moo ni secteur privé boobee de ah li mu def kenn defu ko Tayru Sarr Baba Ngom Mimran ñooñee rek ñetti milliards ak juróom benn téeméeri million la ñu joxe ay laay la la Serigne Mountakha Mbacké ñaari téeméeri million allahu akbar ak yeneen xam ne kon joxe nañu ana tubaab yi Eiffage Enanchine boo leen dajalee ñoom ñëpp juróom-ñaari téeméeri millions ak juróom benn fukk 760 millions jàppale doomi réew mi gën ci yéen de direct news ne dama ne la xoolal ma scandale financier bi la am ta fu njuñ waaw siège conseil départemental boobee nga xam ne dañu koy fay ñaari yoon eh way samba juróom fukki millions ak ñett yu ne may naaw waa lii rajo kankang la wala dëgg la terminé yéen a kaay ne lii dëgg kay waaw mooy deew Iba Thiam bi la ñoom daamaamaar retour de parquet vox soobli ne xale bu akbar allahu akbar l'observateur ne coowal Iba Thiam boobee waaw jël na nag beneen tournure parce que procureur sëñ Bassirou Gueye waaw nee na nañ ca ubbi l'enquête de lañ war a ubbi enquête kay libération yéene kay nee na teraanga waaw oru Sénégal bii nga ni kon daf cee tegub loxo lii la kenn xamul lan la ndax Serigne Ngaye ah, ak associé bi la dañ leen a nax lekk seen vingt millions de dollars la ilaha illallah teraanga góol du dee la bi un milliard de dollars la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 en temps réel.